ci jëmm ju màgg ji nga xam ne ñàkk nañ ko muy suñ bàyyi Modou ñas di jullit xaqan taalibi tijaan xaqan taalibi Baye Niass xaqan xam nañ ko bu yàgg te dañ xam ci moom mooy koy julit moom la yore nekk ku lewet nekk ku bari yërmande ku am itte yu kawe ci jaam yàlla ci di leen jubal di leen xamal dundam yëpp ci loolu ci la ko def te jaam yàlla yi gënal ko sax ay itte boppam ah, bañ ko xamee yàgg na am na jotaay yoo xam ne moo ko daan sos ñu ci ànd ak moom waaye dangay gis ci moom itte yooyu ma la wax ci jub ak ci jubal jaami yàlla yi te yonente ne yàlla jubalee kenn ci yow rek xayrun lakk min xumri naam ku bëgg bàyyi la woon te daan ko roy nag te almaru maa man ahabba moo tax liñ ko yaakaaral bëri na lool ñu ngi ñaan yàlla yàlla yërëm ko ñaan yàlla dëkkale ko ak soppeem ba Maulana Cheikh Ibrahim Niass wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.